tey jug si dugg ne da ngaa dugg si langue gi ne da ngaa bëgg a nekk président. même si mhm. président moom defe naa ne ko dégg rek. Mhm. soo nekkee si géewu politique dafa am posture boo war am et c'est dommage li ñuy wax nii peut-être waxuñu ko parce que da nga bañ nit ki wala yu demee noonu de. mais maanaam li gën a grave si àdduna muy nit koo xam ne moom ci boppam moom il fait l'effort di ridiculiser boppam. Mhm. maam xam nga ni ki dañ laa waroon jël yow di la di la doya dal di la toroxal ak yooyu. mais mu yow ca bopp yow yaa jël sa initiative bopp saa boo xëyee. nga ne yow yaay ridiculiser sa bopp yow yaay xool loo xam ne nii du dëgg nga wax ko bu ko defee mais réaction nit ñi sénégalais yi après ils vont se dire mais kii nii moom dugal si chat bi nga xool commentaire yi. Mhm. demal sur les réseaux nga def une publication sur Bougane et dire nga dem xool commentaire yi lan mooy xalaatu sénégalais ci moom. Mhm. da ngay ridiculiser sa bopp de de jour en jour et pour man loolu moom mérité na leneen lu dul loolu quoi. xaw peut-être il mhm. ne jalousie la xaw ma. Mhm. dafa am lu xew mais sëñ bi àdduna yàllaa ko moom quoi. moo xool président Bassirou Diomaye fay président Bassirou Diomaye Faye mais dafa jàng fi mu war a jàngee. Mhm. dem euh, mais Ousmane Sonko ci boppam mi mi doon jiite révolution bi il n'est pas président de la République. Ousmane Sonko laa Ousmane Sonko ci mhm. boppam il n'est pas président de la République. keroog ba mu demee. Euh, Rwanda moom ba mu demee ba mu demee Rwanda keroog. dafa am rang boo xam ne fa la président la République di toog. am rang boo xamante ne ñi ñu yónni fa la ñuy toog Ousmane Sonko daa dem toogi fa ñuy ñen yónni fa ñuy toog fa la tooge ji ci protocole bi noonu la dafa dem xool fa maanaam dafa am mu war a toog. donc mhm. Ousmane Sonko Ousmane Sonko je parle d' Sonko. waaw du président ki jiite woon cette révolution là. il n' est pas président la République donc yow boo naree frustré xoolal ci jëmm jooju. Mhm. mais après frustration boobu ak mauvais choix ñëpp nga bëgg continuer chaque jour di def yoo xam ne yow sa bopp xam nga ne lii ngay def doxul. Mhm. c'est dommage quoi vraiment. ah c'est c'est c'est. na xoolaat boppam àdduna mu solo. bilaay yàlla moo xool ba Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne. Diomaye sax xamul woon day nekk président. Mhm. mu def ko président loo si mën. après da ngay xëy chaque jour di wax di kaas di def ay affaire mhm. li nga siy jëlee du la neex. daggkatu juuti bi tamit ñaaw na dem moom. waaw loolu moom xamuñu ko. loolu moom dafa ñaaw moom waaw waaw. mais bon daggkatu juuti <laughs> d'accord grave. waaw mooy mooy kii rek mooy mooy doon liggéey. grave daggkatu juuti liggéey la après tout aussi. Mhm. voilà ñu daal di euh, daal di jël euh, suñu suñu beneen point euh, di fële démb ca faram-fàcce dañ faa dalaloon ki nga xamante ne ni bii mooy maître Ngagne Demba Touré. ñu daal euh, kii di Pape Ngagne Ndiaye nag euh, Pape Ngagne Ndiaye laaj na ko ci li nga xamante ne ni bii mooy kàddu yu mu yëkkati woon fële ci seen euh, panel bi ñu defoon le dimanche passé. Mhm. ne ko yow yaa ne woon xeebaate baaxul. Mhm. te gis nañ ne da nga yëkkati kàddu boo xamante ne ni bii daa méngoog lu lu lu lu jëm ci mbirum xeebel. Mhm. ndax dañ la laaj ci mbirum appel à la à la candidature. nga loolu. bu ñu koy def dañu koy def ci chef de quartier wala météo. Mhm. voilà. waaw déjà euh, xaw ma foofu Pape ngañ moo def erreur bi wala je sais pas si biir waxtaan bi wala bokk da doon jouer pour pour leeral. waa dafa rattrapé waat mais ci waxtaan bi li Ngagne Demba Touré wax si waxtaan man mi déglu waxtaan bi. Mhm. dafay waxtaan ba mu yàgg. mu ne am na sax sama benn xarit bu ma wax ne <laughs> appel à candidature de ñaar yi rek doy na ci muy météo. ak chef de quartier maanaam c' était pas de sérieux quoi. comme mu ñëw taxaw naan non météo chef de quartier la mm-hmm. lañ koy def ak lii ak lii no c' était pas mm-hmm. donc wax bi bu koy relayé am na nu ñu koy relayé c' comme si Ngagne Demba Touré dafa génn pour dire d' une manière sérieuse en fait. Mm -hmm. que appel candidature bi lii ak lii lañ koy def c' était pas waxtaan la mais ñun ñëpp saa waay am na jotaay yoo xam ne suñ fa nekkee. un politique. moo tax Ousmane Sonko en tant que premier ministre bu toog di wax. ak mhm. Ousmane Sonko ba nekkoon grand théâtre keroog fële. Mhm. mais Ousmane Sonko ba ngeen gis grand théâtre keroog keroog ngeen ko mujjee gis. xeetu discours boobu ba sa déggaat ngeen mu waxee noonu. dafa am jotaay yoo xam ne jotaay la yoo xam ne mais jotaayu politique la en fait. Mhm. c'est famille politique bu bu réunir. foofu nag wax dëgg yàlla ku neex nag nga nga yëngal sa nekku vous en famille. loolu man li ngañ doon expliquer démb dañ koy jël ci contexte am. bon li mu leeral démb ci ci ndax man personnellement waxuma sax ay waxi ngeen Demba man li may wax dama koy waxaat mooy quand mu me parle d' appel à candidature dama laa wax ne la ñoom Pastef ñoom ci seen bopp ñoo jaar si appel à candidature ñoom maanaam fi ñu jaar ñoom ku si jaar. bu fekkee ne am nga xam-xam bi am nga njàng bi jug ak bëgg sa réew moom defe naa du loo xamante ne nii lu ñu nataat la. Mhm. maanaam ñoo xam ne nii sacrifié wu nañu ba agsi fii. Mhm. damaa gëm ne lu ñuy doxal ci réew mi ñoom dañoo war a nekk ni ko Ngagne Demba Touré waxee. Mhm. au cœur du projet. benn deuxièmement des gens qui ont travaillé sur un projet mais yow sëñ bi ñun ñoo toog ñu xalaat Sénégal nii lañ ko war a defaree. ci agriculture lii lañ ci war a def. si lii lii lañ ci war a def si lii lii lañ war a préparer un programme. des gens qui pendant des années sur un au moment où ñu war a exécuter programme bi juste parce que dañu war a dem wuti ji mais appel à candidature dafa am te dafay continuer di am. Mhm. kenn waxul du am. mais yow imagine nga président Bassirou Diomaye Faye ñu fal ko mu fal Sonko premier ministre ñu teg gouvernement bi ñu xëy suba ñu naan bon léegi appel à candidature pour port autonome de Dakar quelque chose d'aussi sensible dafa am loo xam ne nii danga koy dénk nit déjà koo wóolu koo xamante ne nii dafa nekk ci biir projet bi xam fi ngeen bëgg a jëm. Mhm. léegi nag appel à candidature mënul ñàkk nee naa la chaque jour nga xëy gis mais euh, ministère de transport actuellement d'ailleurs ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi mën a postuler nañ dem postuler. Mhm. parce que am na am na appel à candidature yu fa am loolu day continuer di am dina continuer di am ay gëm naa ne kanam la jëm. Mhm. mais nag dafa am loo xam ne réew dafa am situation bu mu nekk il faut ñu jël en compte. Mhm. réew moo xam ne dañ koy jël moment bi ñu koy soog a jël le di wax ne dañoo fekk réew mi mu nekk en ruine nga. réew moo xam ne dafa tegu ci yoon rek nga ñëw war ko wéyal am na loo xam ne sañ nga koo def bu la neexee nga ñëw ne bon na ñëpp ñëw ñu liggéey ensemble mm-hmm. mais dafa am réew mi fu mu toll te yàqkat yi ñi doon yàq démb bëkki démb ils sont là mm-hmm. est-ce que da yooyu noonu juste parce ñun dañuy yemale ñëpp nga dem jëlaat ces genre de personnes là indi leen pour que ñu nekkee waat yenn mbir yi ci ci bopp réew mi ngañ démb ture démb dafa leeral Pastef dafa dafa dafa yàgg a perte. Mhm. mu gagné na bien sûr parce que résultat final moo gagné. mais Pastef dafa yàgg a perte. Pastef dafa perte dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi wax nga ko léegi. Mhm. Barthélémy Dias bu nekkee maire de Dakar kan moo tax. après doo bu demee ba toog mairie Dakar ba yëg ne moom jàpp na si dara toog na fu dëgër mais dafa mujj jël ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko fa teg. Mhm. def leen ay adversaire li fi xew digganteem ak Abass Fall nañ ko fàttaliku. ay àndandoom ku si mel ni imaam Khalifa Babacar gis nañ fi mu jaar ak moom. Mhm. yeneen ak yeneen xew fi. donc yooyu yëpp bu fi jaaree am na loo xam ne boo fa tollee fulaak fayda la ñoom en tant que parti politique li ñuy revendiquer xam nga lan la. Mhm. mooy ñun mënuñoo nekk fii am parti politique bu am doole sénégalais yi ànd ak ñun ba pare ñun sëñ suñ demee local di am ay quelques maires ay quelques députés. Mhm. loolu lañuy ñuy kaas. même par rapport aux nomination man dama gëm ne dafa am yu stratégique yoo xamante ne dangay ngay xam nit wóolu ko dénk ko ko mu leer la ne diw mii kat ñun ñoo ko projet bi. Mhm. maa ngi wax sànq maa ngi wax keroog ne xam nga lan mooy différence entre quelqu'un ki nga xam ne réew mi jaral na ko woon joxe ba kanam ki nga xam ne réew mi jaral na ko woon xeex bu fekkee ne kooku am na compétence yi dénk ko bu ko bu ko tëb. loolu ngay tëb kooku di jox keneen. d'ailleurs moom sax loolu nee na. kooku ngay dénk xam nga lu tax kooku wane na ne moom lii jaral na ko. Mhm. benn deuxièmement ces gens là imaginer wuñ seen àdduna projet bi di échec yow koo xam ne wër nga dëkk bi yëpp tànqal nga leen. Mhm. fëgg ay bool fëgg ay bool kubéeru cin. cin lu ne nga def ko ci biir réew mi. Mhm. jox leen sonko jox leen sonko xeex nga si xuloo si ñuy kaso li ñuy leneen ak leneen. dem ba xeer nekk nga dem boo dernier moment muy échoué. xalaatuñu ko dem ba xeer nekk rupture. xalaatuñu projet bi di échoué donc pour man kooku. Mhm. bu doon bu jar mais dégguñu fi un ministre bu wax ne moom dem na bay génne xaalisam sax di ko def ci ay ci ay mbir. señ bi loolu loolu dafa am don de soi la loolu. Mhm. donc c'est important. léegi bu ñu ñoom bu ñu jëlul ñoom nit ñoo ñu noonu fal leen ñan la ñu bëgg ñu dem fal est-ce que da ngeen bëgg ñu dem woowu ji mbokk Macky bu fekkee loolu ngeen bëgg bokk ngeen wax ñu ko ñu dem jëli mbokk Macky Sall yi indiwaat leen ne leen doxal leen réew mi. Mhm, mhm. il faut que ñu xam lu ñu bëgg en fait dafa am ñoo xamante ne nii du ñu ay wëndëng du ñu ay taxawaalukat ñi ñuy fal nii du ñu ay taxawaalukat de. sooy dañoo fekk ay ñoo xam dañoo jàng fa ñu war a jàngee nekk si biir dëkk bi am seen i di liggéey ñi nekk impôt domaine ñii nekk feneen ak feneen. Mhm. ñu tey am na si ñoo xam dañoo dem ba ñàkk seen liggéey. waaw waaw ñooñu léegi da ngay di jéggi juste parce qu'ils de Pastef que ñun dañoo woote rupture. léegi dañuy dem wuuri ji koo xam ne dañ koy fekk fee mu toog ñu ne ko bon yow ñëwal am nga compétence kaay liggéey waaw d'accord kii am na compétence kii am na compétence kii dafa wane preuve boo xamante ne preuve dafa def preuve de patriotisme. kooku dafa xeex pour réewam yow sànq Kébé sa biir wax da nga wax lu am solo da nga ne ñi xeexoon Badar dañoo dem ba dañoo am un rang spécial maanaam bu demoon fenn ñuy rang yow mi demoon xeexi ji Badar ba ñibbisi foo fekkee rang doo rang nga am benn xeetu immunité immunité boobu noonu ñii xeexoon fii ci biir réew mi dañ ko war a am mais sëñ bi man suñu ma tegaloon ñaari nit ñu bokk même niveau ñu bokk liñ jàng bokk compétence. ñu ne ma kii dafa xeexoon ba dugg ci biir kaso bi kii moment boobu mi ngi woon fee di naan ataaya. Mhm. kan nga lay jël kan laa jël. ki xeex waaw nañ foog ñu sérieux quoi. Mhm. léegi nag ça n'empêche pas que euh, appel à candidature dina am sénégalais yi appel à candidature sens bi du ay ñi bokk feew ñi bokk fële ñi far APR ñi bokk fële xam la mooy sens bi mooy man mi noo toog fii nii kenn xamuma ma am possibilité wu. Euh, ñu am benn poste bu ñu soxla ma am possibilité wu ñëw wane wane sama bopp ne kaay leen man kat jàng naa lii am naa tel diplôme jaar naa fii ak fii ak fii te cest à dafay indi benn égalité des chances parce que débat wu appel à candidature fi nga ko bëgg yóbbu du foofu. Mm. du affaire ay kii far fii ak ki far fee de mooy ki nga xam ne benn jeune la boo xam ne jàng na fa ma war a jàngee kenn xamu ko kenn kenn mu nekk ci lu xam toog. Mm-hmm. pour jeune boobu mën a ba su ko réew mi soxlaa mu mën a wane boppam moom à travers appel à boobu. donc ñu bàyyi si xel bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. démb leeral na euh, ci ci point boobu ak li nga xam ne ni moom la ci wax même si moom jàpp na ne euh, mm-hmm. par humilité mën na def peut-être def na erreur ci ni mu waxee walla il a pas bien expliqué walla bien communiqué ci li mu wax. Mm-hmm. mais man de je suis. tout à fait d'accord ci façon ba mu ko waxee woon. ak na nga xam ne noonu la ko waxee. waaw jàpp naa ne loolu moom amul dara loo xam ne dama ko ci changer. tout à fait. Euh, am na solo Cheikh Bara mhm. naka nga jàngate kàddu yi nga xamante ne ni bi moom la fa moom la am démb ak kii di Pape Ngagne Ndiaye ginnaaw bam ko fàttalee li nga xamante ne ni bi moom la waxoon waaw xam nga moom nee ko Ngagne démb jour dafa ko ni xeebaate baaxul mhm. mu yëkkati la fois passé kàddu yoo xam ne moom Pape nga Ndiaye dafa jàpp ni kàddu yi xeebaate la mhm. c'est contraire pour man waaw